tooñ baaxut waru ci ñun waru ci keneen eh, bi tabaski bi jubee le premier dafa oote conseil interministériel teg forla mu tabaski ci table bi kiy jënd xar ki koy jaay ki koy transporter ki koy consommer mm-hmm. ñu boo toog autour du table waxtaan mm-hmm. ba am luñ juboo prix xar bi nii la. distance bi nii la yow mi koy transporter lii nga koy transporter par kilomètre nii la ñu dugg ci saal wax ba. kenn ko rek jox sa boroom loxo bañ fa génnee ci loolu la ñëpp nekk ki jaaxal ci yaay ci yaay xar bi ca la nekk ki koy jënd ca la nekk ki koy transporter ca la nekk consommateur ñoo dem toogal ci loolu lañ nekk. loolu dafa am solo bi ki des nit bu jënd fukk di jaay juróom. man de am na loo xam ne du ma ko nangu te wax naa ko ci see dafa naa yéen ma doon oo bu ma juumul li tax ma ne waxtaan dafay baax te lu ma doon man nee naa passager bi fa mu toog warul fay biir aller retour pour jóge bu mu taxaw mhm. loolu ku ko def ribaa nga def mhm. ku ko bëgg def tamit bàkkaar gaal te ku ko def tamit ribaa nga def nga lekk maanaam moo war a dem Thiès julli ji daan fay 1500. ñu ne ñu ne fay 5000 doo dem. 3000 mooy aller mooy aller retour bi. waaw laa la wax. mais yow aussi boo nee 1500 laa doon fay démb tey 1500 maanaam virgule du ci yokk problème daal di jëm gis nga lii ministre bi def man nee naa ku ko ci wax dara da nga kaa tooñ ndax nëgëri daaw dëfu ko tabaski daaw fi la ko fekk. Mm-hmm. dëfu ko. kon doom boobu ñu ko takkal moo tax mu def. ministre bi tabaski daa fekk ko fi de. fu mu ko fekk ci suuf. mini non nekkul woon ministre quoi ah du la laa la wax dama sama wolof booy leerul kon dama ne tabaski daaw fi fekk. ah te agiruloon nii. d'accord kon bu agiree nii bu ko nit moo ko bien sûr wala bi moo moo jagul. nit nag buy wax ministre de la république da ngay fi muy waxee. ndax moom nee naa ñëw ci kaaru ceeb ba ne yokk leen paas mënu ko wàññi leen paas mënu ko mënul toog bureau ne yokk leen mënul toog bureau ne wàññi leen kon bureau ak terrain ba ci am maintenir lay wax le métier il défend le métier bu nga doon benn problème kon ku ko ci wax dara kaa koy waaye war naa mesure conséquences yi nag te xam ne loolu mu sant Dakar Dem Dikk def ko Dakar di Dikk société nationale la jële fii client bu ko neexoon mu yëpp leen ci merci yóbbu leen dara fuut ak fu ko neex ñu retourné waat ci merci. te que directeur bi jëndu carburant chauffeur ba kay dawal jëndu carburant alul Sénégal la mais ki nga xamante ne moo ko moom otam. privé la waaw mënul ne tarif bi ñu ne 1500 la mu ne 1500 rek laa yëpp ma ne bu ko toppee ne loolu mooy am kon waa ji mu ji bu départ fii point A bu eggee point bi dafa war a taxaw ba amaat retouru 1500 su nga ñëw. bu ko amul dafa war a am te bu ñëpp demee kii laay fees dal gat ba lañ fiy def kon il faut que mooy mooy yóbbu man loolu laa d'accord man damaa d'accordul client bu demagut di fay paaka lu tuut mosuma ci ànd ma ci ànd beneen bi mooy am lu am chaque jour bu tabaski passé lañ wax ne dañu yokk paas yi mais bu des ko jàllee client yi day wàññi paas ñëpp xam ne ko ñëpp fu ñu doon fay 2000 client bi 1000 francs lay wax. parce que dootul dugg ci gare routière bi day génn ci biti xam nga transport tarif lañ wax waxutuñu gare routière waxuñu dañ ne tarif lañ wax xam nga ministre tarif la wax man mii tarif la wax keneen tarif li wax tarif in wuru ko ko wàññi mais bu ñu wàññi prix yi yoonu kenn ci nekk kon ni ma dégg ñu wax ne góor xoo ba ñu yokkee paas yi waroon na caa waxuñu mais bu tabaski yàlla actuellement nii dañoo wàññi prix te kenn indi ci wax consommateur duñ ci wax te tarif dëkk bi dañoo war a tàmm di dox ci yoon kan ma wàññi prix yi passager bi. usager yi dañuy waxaale ko wàññi waaw wala waxaale waaw non loolu laa lay wax waxaale wu ci am wala waxaale moo wul am. mais biir gare routière amul waxaale. déedéet xam nga man tarif lañu ko ba léegi ñëwuñu ci gare routière man je me mets à la place de l'usager. non non non moo tax may bëgg mu laaj. waaw dama ne. man ba léegi man waxuma lieu de départ ou man tarif laa wax mm-hmm. man passé ma tarif dama ne tarif in wuru kaa yokk mm-hmm. in wuru kaa wàññi ma lii laa wax. mais boo ne bu ñu ko yokkee man ma ma ma yuuxu mais buñ ko boo koy wàññi yow kenn du wax dara ba léegi violation la tooñ nga ki yokk tooñ na mais ki wàññi tooñ na te li wax ni ñëpp dégg nañ ko beneen bi wax naa ko ci bulu benn ñaar dama ne gouvernement bu ñu bëggee régler problème transport gis nga yëpp yi ñuy yëpp feneen fu dul gare routière lañ war a arrêté. loolu lañ war a arrêté. gis nga gare routière interurbain bi boo marché la boo marché fa la départ yi war a amee buy demee interurbain même bu dee horaire la boo marché la war a départ fa mu jëm amul solo fa mu départ amul solo nga xam ne yow mi oto bi bu départ bus bu départ ba circulation bi ba am minicar bi ñu recensé ñu si xam leen ku jeer a sax mën nga faa bàyyi ñu defal la transfert arrivé nga xam ne du amati ay coupes du route te oto bu départ ñu xam la police nga fa lañ santaane nga nekk ci boo santaanu oto bi dafa jógee.